d'accord peut-être li ma ni ma ko waxee la wala nga ñàkk comprendre mais. Mhm. collectif ñoo lànk lépp loo xamante ni soxlawu askan wi rek ñu ngi ci. par exemple li tax ñu ñu ñu créé collectif bi moo doonoon courant bu seet. ñu mhm. xeex ci xeex bu am solo ci jamono jooju. Mhm. beneen bi ci des li nga xamante ni mooy licence de pêche yi tamit àndoon nañ ci ak pêcheurs yi ci xeex xeex boo xamante ni bu am solo la. kon yamuñ ci yooyu rek mais yooyu dafa doon mbir yoo xamante ni mu ëpp solo ci dundu doomu aad doomu aadama. nit ki bu fekkee am na fu mu am fu mu dëkk bu xiifee lekk mhm. bu maree <laughs> maree naan bu feebaree mën a faju am sécurité jàpp naa ne yeneen yi ci des c'est des ay ay kii ay ay am dina dina am solo mais doonut loo xamante ni lu mën a ñàkk la ci ci ci ci ci dundam donte nag yooyu ci la bokk comme ni ma la ko waxee léegi ñi ngi fi ci même euh, société téléphonique yi nga xamante ni ñoo fi ñoo fi ñoo ñoo ñoo fi ñoo fi ñoo fi nekk te télécommunication yi ñi ngi ci di di xeex ngir séerité connexion internet bi ak téléphone ak téléphone connexion boo xoolee si dara dafa cher fan yii yëpp. ñi ngi ci da ngay jënd euh, boo je sais pas boo jëndee <laughs> si une semaine wala un mois far far mu jaar. effectivement deux jours mu jaar tol tolloon ngi ñi ngi ci ñi ngi ci ñi ngi ci di préparer benn combat boo xamante ni incha allah jàpp naa ne ñi ngi ci woo askan wi yëpp tamit parce que askan wi tamit ñun du liñ mën mooy peut-être euh, soulever ay questions yoo xamante nii intérêt général la lu leen lu leen ñor la loo xamante ni foofu seet nañ ne lii ah sonal na askan wi waaye buñ ci jubee di xeex tamit du ñun kese ñoo ko mën a xeex ñoom ñëpp ñoom loolu ci war a war a àndal alors man fi ma bëggoon ñëw laal nga ko léegi par rapport ak combat yi nga xamante ni moom ngeen di mëne la plupart du temps dafay nekk lu nga xamante ni da ngeen def benn constat général ni que lii san ne ci dëkk bi ngeen jóg xeex ko wala nit ñi ñooy ñëw vers vous euh, pour vous exposer euh, yenn problème waaw waaw léeg-léeg ñu ñu ñu gis benn par exemple dund gi ni mu ni mu chéré léeg-léeg ñu sentirandoo ko comme ni ko askan wi yëpp sentir ñu ne ah lii war nañ ko mën a def léeg nag am benn domaine boo xamante ni bu précis la boo xamante ni ña fa nekk dañuy ñëw daat nañu ah ñun dañoo am problème tel ak problème tel dañoo bëgg ñu ngeen jàppale lañ ci ñu xeex ko. lay demee temps d'observation boobu noonu euh, pendant combien de temps lay durer et puis euh, ban apport moom nga parce que aussi euh, je suppose que doo nekk rek une structure boo xam ne pour di mm-hmm. revendiquer revendiquer rek lay nekk seen seen seen seen i proposition lay lan lay doon pour pour ne serait-ce que participer à à à faire avancer les choses. effectivement par exemple exemple bi a la jox mën a jox rek ci li nga wax noonu par exemple loi bi. dañu fi def ñaari e, concertation yoo xamante ni ci Macky Sall moo ko fi defoon benn bi 2014 beneen bi mooy jumul ci e, fin 2000 2022 bi ci la woon ñaar yooyu yëpp yàlla dafa dogal e, dañu bokkoon ci commission yi nga xamante nii ñoo ñoo doon waxtaan ngir xool naka la luwaay bi nañ la ñuy def ba wàññi ko ak tund gi yëpp ñoo lank commission bu ne dafa demoon am fa ay représentant def ay proposition donc loi bi man maa fa représenté woon par exemple ñoo lànk dafa am proposition yu bëri yoo xam ne dañ ko defaloon état bi mais malheureusement bi ñu demee ñoom dañu xool li nga xamante ni moo leen ci ñu jël ko. Mhm. loolu moo tax bi ñu ci jógee même pas deux mois non seulement loi bi dafa gën a <laughs> dafa gën a yokk. mais mais mais mais amul benn njëriñ. kon ah naa da nga bëgg ñu dissoudre ko. bon soit lenn moo mën a am ñu ñu ñu ñu ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk actuellement yor ko parce que depuis. presque un kan kii comment il s'appelle lu gaa la nu mu tuddati sax. kii nga bëgg ñu changer certain Balde. non euh, kii moo fa nekk moom mooy moom mooy DG bi. xaw ma DG xaw ma non. Momar Ndao Momar Ndao ah. Momar Ndao moo fa nekk. donc ñoom li li nga xamante ni moom la ñuy def actuellement bi ñu leen fa falee ba léegi amul benn askan wi gisuñu ko dañu leen a fal pour ñu régu euh, euh, régulariser li nga xamante ni moom mooy mooy mooy loi bi mais gisuñu ne boobu ba léegi loi bi dafa gën a yokk. donc jot na tey ñi nga xamante ni ñooy ñooy nouveau nouvelle autorité yi. Mhm. ñu woo leen laaj leen ñu def ñu jox joxe seen bilan. Mhm. par rapport ak moyens yi nga xamante ni jox leen ko pour ñu xeex luwaay bi nga xamante ni moom moom lañ yokk ñun proposition yi nga xamante ni defoon nañ ko dañu waxoon ne. Euh, dafa am loo xamante ni c'est la loi du marché la demande demande ak offre bu fexee ba nga xamante ni offre bi dafay ëpp doole demande bi bu boobaa forcément loi bi dafay dafay dafay wàññi te loolu lenn rek moo ko mën mooy ay logements sociaux lu mel ne seen asalem ak SICAP ñu gën leen a dooleel ñu tabax ay kër yoo xamante ni dañ koy dañ koy jox askan est dina est